aja ak doon dem ne ko dernier quart de finale baa secteur de galangé ak kan fils de balline Siki ma ne ko loj jaan sa baye mat ci la bok kuy baye ñu ni ko Balin Siki diko ñaanal yalla yeeram ko taxaare ko aljana dom ji maa ngi lay ziar waye dom ji de daan ndax yaayam maam Fallou doom ji daan nax yaayam doom ji dañoo dem simal doom ji ni ma yaay maa lay jox paasu Kazu Rajab ndax ñoo bokk sëñ Fallou ñu jige foo dajee njaga mu ni ma yaay maa lay jox paas ma ne ñu dem Touba doom ji ni ma message chaque naan ma yaay yëf bi ñëwagul gisuma dara ba ay tas yaakaar yaa mën a tas yaakaar sa yaay sa yaay ngeen tas yaakaara tas yaakaar ni ma def baaxul waaye sëñ Fallou am na lépp duma la koy jappé ndax japp na la ngir sëñ Fallou ba pare sëñ Fallou awa bu sa chamignal ma ba kunta sunu yakari teeg ëlëk bàyyi sëñ Abdou Karim bàyyi sëriñ Fadal sëñ kër nag nii lay def di yor nan turu jara da ngay benn benn lanteeg moom ba lu ko niib waaye boo nee carax si kawam tay nga xam maa la ko wax dem na dem na dem na dem na laa ilaha illallah fils de Batling secteur secteur secteur mii secteur mii secteur mii maa la ko wax doo ko may mu xalaat ko mayee mu xalaat mu roy la secteur bilaay doole doxul jàmm doole waral li wutul doole soo amee doole jaaxal mbër